jërë ngeen jëf mbokku internetu Thiowli Sénégal TV di leen nuyu di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa ci sunuy information di leen wax inna lillahi wa rajo ilayhi raji'un la doore information bi muy ki nga xamante ni mooy célébrité bi nga xamante ni mooy Yaa Awa Rassoul moom lan xibaar ni waaye juróom bu góor moo fi daal di bàyyeekoo tey bi ñu xëyee ci suba mu nekk xibaar bu diis boo xamante ni moo fi rosandi léegi léegi muy génn àdduna ki nga xamante ni mooy waajur bu góor ci yaa awa rasool gannaaw bi nga xamee ni ñàkk na waajuram bu jigéen ci fan yële ñi mujj ki nga xam ni mooy waajuram bu góor daal dina koy fekk ji di ko jàll à travers suñu plateforme yi nga xam te ni mooy Joli Sénégal TV di bokk ak moom naqar bi ñaan yàlla yërëm ko daal di koy xare àjjana ci àddina ñu gën a kawe kawe di ko jaale képp koo xamante ni jege la wala mbokk la ci ki nga xamante ni mooy célébrité bi nga xam te ni mooy Yaa Awa Rassoul ñaan yàlla yërëm ko daal di koy xaare àjjana ci gën a kawe kawe jërë ngeen jëf mbokk internetu Joli Sénégal rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a koy ànd ak ñun saa su ne ci suñu information jaa ngeen jëf. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles de Sénégal. Abonnez-vous, Charles de Sénégal.